bismillah barke Ahmad Bamba Xadim Rasul barke moom Seex Ibrahima Fall Babil Muridiin asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu yéen suñu bokk yu baax yu tëdd yi yéen ñi nga xam ne maag yéen ñu bokk coalition beneen baat bu bees man Mamadou Fall médiateur modérateur ci panel bi di coalition beneen baat bu bees maa leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen sant di leen gërëm waaye di leen ñaanal jàmm di ñaanal jàmm seen njaboot di ñaanal jàmm mboolem julliti sans borom yi waaye di ñaanal jàmm mboolem bindee fii sans borom yi di sant bu baax sunu borom di dolli ci la ma ko doon sant waaye di julli ci sangam bu tëdd bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Cheikh Ahmad Bamba Xaadimul Mustafa di jaraw lakkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Muridiin di dellu si rek ginnaaw bi fi bokk yu baax yu tedd yi jaare ma dal rek ci sëñ Modou Kara Ngom di ko nuyu baax a baax di ko jox wàccuwaayam waaye di nuyu sëriñ Modou Xuma bu baax di nuyu di ko jox wàcc waayam di nuyu sëriñ Maysa Mbay di ko jox wàcc waayam moom tam di nuyu sëriñ Amadou Seen ñaa di nuyu sëriñ Dam Njaay ñoom ñëpp di leen jox seen wàcc waay waaye sëriñ Maxtaar si Kàggula ca Amérique waaye sëriñ Alxuseynu Ba ca Amérique ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen jox seen wàcc waay waaye di nuyu sëriñ Alioune Guèye Badara ak kii di sëriñ Ousseynou Guèye ba tey di président ci immigré yi nga xam ne dañoo nekk fa féete ci Sénégal xañ na nekkoon ci réew yi moo xam ñuy dem di ñëw mbaa ñu toog di nuyu mboolem ña ngeen bokk liggéey boobu tam di nuyu sëriñ Adiña ca Maroc waaye di nuyu bu baax a baax. Jean Mendy ca Norvège di nuyu baax kii di Mikaël waaye Serigne Bessirou Diagne waaye Serigne Alxuseynu ci wetu Serigne Jean Mendy moomu waaye di nuyu baax itam ba tey kii di Jacqueline Mendy di nuyu baax suñu jigéen bu baax boobu soxna Awaka France Normandie di nuyu baax yi soxna Ummi Sarr Canada ca Montréal di nuyu soxna Xaddi Mbàkke ca Daaru Muxti waaye soxna Xaddi Xaddi Xaatimatu Mbàkke ibnu Sëriñ Muhammadu Mustafa Fadilu ca Tuuba Mbàkke waaye di nuyu kii di Sëriñ Maas Ngom ca région Fatick département Fatick waaye commune u Tataguine Escale di nuyu soxna Astu jaxate région Thiès département Mbour waaye foofu ca caajaay ak Tataguine Bambara yépp ak seeseen googu di nuyu Modou Ndoye Fall tamit aussi région Thiès département Mbour commune seeseen di nuyu bokk yépp mboolem ku may dégg ci panel bi góor ak jigéen mag ak ndaw ku weex ak ku ñuul làkkat bi ak wolof bi maa ngi lay nuyu waaye di nuyu fii ci Italie ci Bologna rawatina sëriñ Modou Bey sëriñ Assane Ndaw sëriñ Aya Fall sëriñ Ousseynou Sarr sëriñ Ibrahima Jëlaw waaye sëriñ Ibrahima Jaw ak soxna Fatou Fall ak soxna Xaddi Ñaan soxna Fatou Kiné Guèye soxna Aïda Guèye waaye soxna Boussa Tall yéen ñëpp maa ngi leen nuyu baax di leen jox seen wàcc waaye waaye sëriñ Moustapha Fall ñu ngi lay nuyu te di la dalal bu baax a baax Serigne Moustapha Fall ci panel bi di coalition beneen baat bu bees ñu ngi lay nuyu te di la dalal di la wax ne fii sa kër la saa bu la neexee man nga àddu dolli ñu say xalaat dolli ñu ay conseil waaye bu la neexee tam man nga dugg laaj say laaj laaj boo fi laaj mu jëm ci wàllu kii ñu féete muy élection législative yi di nga am tontu incha allah rabbi mbokk yi kon di doole am mbégte lool rek di dalal tamit gan ñu baax ñi nga xam ne ganesi nañu fi di ci tàmbali di tudd rek kii di sëriñ seex Tidiane Mbay di imam sëriñ seex Tidiane Mbay maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax waaye di la dalal fii ci coalition panel bi di coalition beneen baat bu bees ci turu mboolem kilifa yi ne ci ne fii ci coalition beneen baat bees rawatina kii di sëriñ Maysa Mbay waaye di la dalal ci turu kilifa yépp yi nga xam ne ñoo seq beneen baat bu bees di la dalal ci turu médiateur yi na ci coalition beneen baat bees ak modérateur yépp di la wax ahlan wa sahlan marxaba marxaba bikum di sant bu baax Serigne Omar Mbaye moomu tam nga xam ni yéen a nekk wala ngay mu doon ci moom wëllëre di soppe ñu ngi koy sant bu baax moom itam di ko gërëm ci taxawaayam ak liggéeyam bu rafet di ko nuyu di nuyu mboolem waa Mbour waaye waa Ngaay gépp ak waa région Thiès gépp rek ak waa Sénégal di nuyu itam sëñ Ablaye Fall di ko gërëm moom itam ci taxawaayam ci Espagne di ko sant di ko gërëm moom itam ci yitteem ak yéeneem waaye di leen sant bu baax a baax fu ngeen mën toll rek ak di sant ñi ngeen nekkal te ànd ak yéen ci liggéey boobu te dara waralu ko lu lu jëmee kanam réewum Sénégal di nuyu baax Serigne Modou Diop. waaye di ko dalal moom itam ci panel bi di coalition beneen baat bees di rafet lu baax a baax ay xalaatam ak ay waxam ñu ngi lay sant di la gërëm sëriñ Modou Diop di la dalal di la gërëm ci turu kii di sëriñ Modou Karangom ak mboolem ñi nga nekkal foofu ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax bismillah di dalal itam Alain Albert moom tamit ñu ngi recevoir message am gis nañ ko Alain ñu ngi lay dalal baax ci panel bi di coalition beneen baat bees di ñaan itam nga yëkkati sa kàddu ba ñu dégg la nga dolli ñu li nga am ci xalaat ak sa pas-pas ak yéene ci lu jëme réewum Sénégal kanam ci coalition bi di beneen baat bu bees ñu ngi lay gërëm di gërëm Jean Mendy di gërëm mbokk yi nga nekkal ñépp waaye di ñëw itam di gërëm bu baax a baax mouvement dooleel beneen baat bees ca Daaru Muxti maa ngi leen di gërëm ci turu mboolem coalition beneen baat bu bees di sant bu baax di am mbégte ci taxawaay boobu ak yéene jooju ak pas-pas boobu di ñaan sama borom rek mouvement yi bari lool ci réewum Sénégal ñëpp ànd takku rek ràññee xàmmee lan mooy beneen baat bees ba man cee taxaw taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a taxaw ñu xam xel ne beneen baat bees seen taxawaayam ak yéeneem ak pas-pasam jëme réewum Sénégal kanam la te ñu Sénégal ku ko jëme kanam rawatina ña ña ña nga xam ne ñoo fay dunde jàpp naa ne seenub cër nga ca kon cër boobu dañ ko war a gàttandu taraanga jooju dañ ko war a teeru dañ ko war a jàpp dañ ko war a fonk dañ cee war a jàpp bu baax a baax itam mu nga xam ne dara du du ture mu agsi ci ñoom waaye ñu gàttandu ko gàttandin woo xam ne danañ ci bay seen waar ba mat sëkk ba nga xam ne dinañ dina leen wóor ne seen njariñ rekk la te nit nag du gis njariñam ba ba noppi di ko di ko wàcc walla mu ci bañ a am pasteef walla mu ci bañ a bay waaram nam ko ci war a bayee jàpp naa ne su boobaa sax xaj na njariñ loolu bu ñëwee te taxawoo ci taxaw wa nga ca waroon naa taxawe sax jëmbut bu ñu la ko tegalee muy ndab loo xam ne danga caa war a xewlu xaj na soo yaram dina daw ndax di nga ni kat man kat rëccu naa lu ma doon seetaane beneen baat bu bees ba mu liggéey liggéey bu toll nii ba tey añ bi dese ma te man mii tax man mii toog di añ maa taxoon mu di ko liggéey te moom mën naa am moom sax añ boobu mën naa am du ko fa fekk kon jàpp naa ne waa réewum Sénégal yéen ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy ku weex muy ku ñuul muy làkkat ba wala wolof ba. jàpp naa ne war ngeen a bàyyi xel bu baax a baax coalition beneen baat bu bees te xam ne dara taxu koo jóg lu dul njariñ lu jëm ci Sénégal rek ak yéene leen jàmm yéene leen ak yokkute yéene leen paj mu baax yéene leen wax da yàlla dund bu yéwén ndax daw na yaram ni ko soxna ummi waxee ndeysaan metti na lool tiis na ci ku gis vidéo bi noonu mu bindoo ñu ne la Sénégal toll na foofu te xam naa ne sax li wér ba wér mooy am na yeneen jafe-jafe yeneen tartar yoo xam ne raw na yooyu dafa làqu rek xëy na loolu da di vidéo bu ñu gis waaye am na ñeneen ñu dund yeneen xeeti metit yeneen xeeti tiis yoo xam ne mën naa am sax raw na tiis woowu na ma yàlla baal waaye nag di ñaan suñu borom mu dimbali ñu dolli ñu sax dimbali ndax dimbali nañu nañu ko dolli bu baax a baax ñu maa ngi tuub loolu sama borom nañu dollee dimbali ci yërmandem ak mbaaxam gi rek dooleel bu baax a baax coalition bii di beneen baat bu bees ba yéene ji mu am ak pas-pas bi mu am rek moom sax suñu borom ci boppam yërmandem ji mu am ci jaam ñi mu jaarale ko ci ñun ba ñu àggale ko ci réewum Sénégal ci kattanam ak mbaaxam ak yërmandem ak suturaam. amin bi jaay Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul barke maam sa Ibrahima Fall Baabul Muridiin maa ngi leen ci massaw baax a baax soxna ummi di gërëm itam soxna xaddi soxna soxna màggat fay soxna màggat fay ca Italie yooyu itam ñu ngi lay gërëm di rafet lu baax yooyu itam sa intervention ni ko soxna ummi defee rek ngeen bokk ko waaye man itam maa ngi leen di massaw maa ngi leen di massawu soxna mi di la massaw yow moom di mas massaw mboolem jigéen joo xam ne rek yaa ngi réewum Sénégal wala nga nekk bitim réew tey dégg sama kàddu di ñaan sama borom rek ni ma ko waxee rek mu dolli ñoo dimbali ba lii nga xam ne rek mooy wàll gii di nga xam ne ci la coalition beneen baat bés féete muy lu jëm ci lu saafara jafe-jafe yooyu rek suñu borom dimbali ñu matale suñu yéene ba ñu ba saafara so yooyu yëpp loolu lépp ñu am ci saafara ñu dem ba fàttani kat yu mel ni jaaroon na fi ñu ngi gërëm itam di dalal soxna soxna soxna Karim soxna Karim Ngom soxna Karim Ngom soxna Karim Ngom ñu ngi lay gërëm bu baax di la dalal ci coalition beneen baat bees di la sant di la gërëm bu baax ci dugg nga dugg si ci coalition beneen baat bees di la gërëm ci turu Serigne Modou Karangom nga xam ni moom moo tax nga dugg fii di la wax bismillah yow itam di la wax ne fii sa kër la coalition beneen baat bees yaa ak ñëpp yéen ci yam pas-pas bi bi nga fi bi nga indaal rek moom nga fi fekk na la wér ne Sénégal rek moo tax mu jóg Sénégal moo ko moo ko ñor moo ko yitteel. moo tax rek ñu ñi nga xam ne dañoo bokk bokk pas-pas boobu nag ak yëg-yëg boobu nag ñoo dajaloo rek fii ci coalition beneen baat bees loolu na la leer leer keneen koo xam ni dend na ak yow danga man ko koo leeral kenn ku nekk rek Sénégal melokaan wee mu mel te neexu la xaj na amoo ci pexe neexu la waaye jàpp nañ ne li nga cey néew néew pexe ak lam lay naqar naqar la muy métti métti lu mu néew néew la nga am ci pexe rek buñ ko boolee ñun ñëpp ndax na mel ci yow lay mel ci man mel ko ci keneen mel ko ci soxna misaar mbaam mel ko ci soxna awaka mbaam mel noonu ci soxna màggat fay wala mel noonu sëriñ Modou Xuma wala sëriñ Dam Njaay wala sëriñ Amadou Serña wala man mii di wax ak yéen kon ku ci nekk rek wala sëriñ Maysa Mbay kenn ku ci nekk rek naqar woowu ak tiis bi Sénégal di dund nee mu mel nee mu demee métti na la loolu rek mooy pas-pasub mooy ànd mooy booloob coalition beneen baat bees ngir loolu lépp kenn ku ci nekk ci ñun la nga mën a kas néew ci pexe wala ciy xalaat wala ciy xame wala ciy man-man rek nga boole loolu buñ ko boolee ñun ñëpp kenn ku ci ne la muy indi ca loola jombul rek suñ borom ak mbaaxam nag ak yërmandem moom mën nañu doolee dimbali ba ci turu coalition beneen baat bees bi nga xam ne ci dogalam la sosoo nii ah yàlla mën naa def itam niñ ko bëggee ñu amee ko noonu ci kàttanam ak mbaaxam ak yërmandem waaye yal nañ ko matale noonu yal nañ ko dimbalee ba lépp mel noonu mu niñ ko bëggee ba ñu am sax lu kawe suñ jot di leen gërëm bu baax di leen santati bu baax a baax waaye di nuyu sëriñ xalifa Ababacar Diop foofu ca Italie ca Sardaigne ñu ngi lay nuyu sëriñ Ababacar xalifa Diop ñu ngi lay nuyu baax a baax di nuyu sëriñ Abdou Ngom ca Como ñoom ñëpp sëriñ mboolem waa Como yi rek bu ma limee du ñàkk dinaa jum waaye sama xarit sopp yi wóor yi nekk foofu yéen ñëpp tey itam am ci ñooñ wax da yàlla dañoo am cofeel ci soxna Awaka maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen sant di leen gërëm di am ci yéen mbégte fu ngeen mën a toll mbokk yi maa ngi yem di fii ba ca kanam jombul. ndax xam naa ne sax ci kanam tuuti dinaa waaj jéema dellu ci tool yeeg yooyu rek kon ñu def noonu bu ñu déggante waatul tey jii rek xañ na bu ëllëg ak jàmm incha allah rabbi lu fi wàccati rek ci lu mel ni ay audio la wala lu manti doon rek buñ ci àddoo jotee rek àddu ci nañ ci war a àddoo dalal ñi ñu war a dalal ci anam yi mu gën a rafete toppaat ci ñi nga xam ne rek mën sëñ Modou Kara saa su ne mi ngi koy def waaye bu ñëwee itam fa mu yem rek ñu tàmbalee fa ñuy tam kon mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Mamadou Fall la woon di médiateur di modérateur ci panel bi di coalition beneen baat bees asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh